kër gii ñu bokkoon dëkk ko man ak moom yaakaar naa ne ay nit yàgg nañ ko fee fekk nit ñëw na fi parce que du ma triser may fen te ku dee sa loxo ndejoor bi ngay géganoo nit ñëw na fi ñu jàppoo dugal ci kër gi mu génnaa doxal boppam génn ci biti nit daanoo na fi ay rab dugg ci biir génnaat dox ñibbi loolu nag wax dëgg yàlla bu amee ma teg ci sama bët sañ naa taxaw wax ko parce que tamit wax dëgg yàlla mënumaa jox lu ma amul parce que li may am ginnaaw yàlla ak yonente bi alaaji makan be moo ma koy jox yàlla suñu borom dogal na incha allah comme ni ko yónnante bi diglee comme ni ko yàlla diglee day takk deuxième femme ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax di ko wax heure ménage di ko wax na ko yàlla na sëy bi am barkeel ngeen am ci ay njaboot yu bëree bëri am ci ndey ak baay. alaaji Satou Ba maa ngi lay nuyu bu baax di la gear coow li nag bari na empereur des arènes roi des arènes victoire bi mystique yi sëñ bi maa lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax. Hmm. man mosuma xam ne journaliste yi dañuy kidnappé tey tey laa jis lu ma mosul gis sama àdduna. infiltré waaw ah, dem naa ba bëgg a tëb balcon bi. waaw ah, wax dëgg yàlla. Eh. Eh, mais rek mm. xaw fi toll nii moom. Eh. comme li ñuy wax rek nit moom. boo naan nit ki nam la nam ma def rek nam. nam ko def rek nam la defa tax. man sama diggante génn daanaka sotti ceeg def si la. te sëriñ bi moo ñu boole. macha allah te nit am na loo xam ne yaa ko moomal sa bopp waaye am na loo xam ne nit ñi ñoo ko moom ci yow. Mm-hmm. te yow am nga cër ci man. Mm-hmm. ndax bi nga may xam di ma fekk Touba. Mm-hmm. booba ñii ñëpp kenn ñëwut fekk ma fa. bi nga may tàllal mikoro yaakaar naa man galo moom a njëkk a galo saw. petit galo moom a njëkk a tàllal micro moom laa njëkk defal interview fii Ndakaaru. depuis booba ak léegi yaakaar naa yow jël si nga ma fu ne fekk nga ma ba Touba interview yi ëpp doole say interview kay gasoo ko jël ak seen làmb garçon gars yi sax dañ may toon dañ na ma surtout garçon bi eh. saa Touba rek lañ fa daan dàkk eh. dem nañ ba naan ah, xam nga da ngay boycotté eh. ndax jàpp nañ ne yow man rek ngay jël mm, te wallaay demewut noonu mm-hmm. mooy dañoo bokk luñ munta séddoo mm-hmm. bokk ko borom site bi muy makan ñu bokk Serigne Saliou macha allah kon man ca kër ga laa ca kër ga laa mm-hmm. bokk vraiment ñi ngi sant yàlla nag di julli ci yonent bi di leen ziar comme ni nga ko waxee rek yàlla dogal na ne samedi bi di ñëw incha allah fële ca Bambey taax dama mm. fay jël soxna mm. eh, ci kàttanu yàlla yonent bi maa ngi fay woo ñëpp nag mm. bàyyi ma kenn ñu ñëw teew ci takk ga eh, ñu def ko ci li nga xam ne dañu yokk xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ci barke Seydina Mohamed. Mm-hmm. di ci woo ñëpp wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Cheikh Abdoul Karim Mbacke Fallilu mi nga xam ne moo jàpp bés ba. Mm-hmm. macha allah ñu ngi koy ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal Mbacke bàlla mu gudd fan lool te wér. macha allah ci barke Cheikhul Khadim ak njabootu Serigne Touba gépp mm-hmm. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. macha allah dégg naa am am soxna maam jaara la de wala sama information. dama la waaw soxna soxna jaara bu sa la waaw. waaw soxna jaara bu la wax dëgg yàlla. ah lu la bëgg-bëgg la reef la wala la. yàlla tudd la ndax wax naa ko yaakaar naa. Mm-hmm. sama sama sama jigéen bi laa ci njëkk waxtaan mm-hmm. ma ne ko dama gént Serigne Saliou. di ak man dama wutal soxna su tudd soxna jaara. macha allah. ci diggante bi ma ko géntee. même pas quatre jours sama mag bu jigéen. Hmm. woo ma téléphone di waxtaan ak man dama waaye yow mënoo ñëw ma may la maam jaarame. allahu akbar. <laughs> macha allah. maam mën a teg. Hmm. xamatuma lu ma wax moom ma coupé sama téléphone. Hmm. mu mooy woowaat di insister boobu yéeg naa. waaw ak diir ma door koy woowaat téléphone. ne ko yow maam jaara bi nga may wax fu mu dëkk. mu ne ma Bambey la dëkk. mu ne ko li ci war lépp nañ ko def. incha allah micro. mu ne ko li ci war lépp nañ ko def ndax. boobu moom xamul sax lii maa ngi koy mm. door a wax mm. tey. Mm. waaw sant naa ci Serigne bu baax a baax sant naa bu baax. macha allah boobu dafa jib. nga dégg ay mbër yu bëri ay ñoom Ama Baldé fii ay Modou Lo Ada Fass maanaam. dama dama cité ñooñu parce que ñoo gën a populaire ci làmb ji man naa ne. Mm-hmm. ak yeneen mbër Balla Gaye ñëpp parce que ñëpp say nit lañ jëflante nga ak ñoom. Mm-hmm. mais yaakaar naa ne samedi le 27. Bambay de xam naa ne moom circulation ba di ci wax sëñ àll borom Bambay rek. waaw mooy dalal gan yi sëñ àll boobu mu waaj <laughs> sëñ àll borom Bambay na waaj rek. te xam mm. ne gan ñi moom la ñuy dalal. Mm. ndax xam naa comme ni ñu ko waxee rek Moodu moom mooy président bi mooy lépp. mooy mm. jiite gars yi convoi bi. Ama Balde ku ne xam ne sama diggante moom Ada Fass. Balla Gaye. booy lim di ju tafaati mi doon bëre ñëpp mbër yi kenn daal. waraan ñëpp. mbëri ndaw yi moom du ma fi nekk di lim parce que mu leen a dajale mm-hmm. ma kenn di woo sama mbokk yi ñaankat yi mm-hmm. Serigne Abdoulaye Diouf mm-hmm. maa ngi ko ciy woo sëriñ bay Diagne ca Baxdaat sëñ Mara Niass sëñ Cissé borom Tawféex sëñ Mor borom Jaamal sëñ Cissé bu sëñ Babacar sëñ Cissé bu sëñ Babacar si ñu ngi ko ci woo bu baax sëñ Samba Ndour yow kooku sama mag la sama xarit la sama lépp la Samba Ndour man ak moom du sax ay affaire u ñaan yàlla moo ñu boole. Mm-hmm. ba dara du dara. Mm-hmm. Samba ñoo bokk ndey. Mm-hmm. ñoo bokk baay. macha allah Samba Ndour daf ma daan taxaw ci lu ne boobu yëpp xewul. kooku sama lépp la. maa ngi koy woo. vraiment. ci bis bi moom bisam la. wax dëgg yàlla sëñ Dame Faye ñoom ak waa Kër Baye Ngor bàyyi ma kenn. macha allah di woo Baye Jili Mbacke borom léegi léegi. sëñ Modou Mbackeem sëñ Aliou Mbackeem sëñ Fallou. njaboot Serigne tubaab gépp sama xarit yeeg soppi yeeg maa ngi leen di woo sama sëriñ yëpp. maa ngi leen di woo. Hmm. di woo itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw moodu yëpp. Hmm. bàyyi ñu kenn rek. macha allah dinañ dinañ dinañ ñëwaat ci woote beeg yëpp waaye sëñ bi ba tey dañuy dañuy taxaw ci wàll làmb tafaatin Tine Balla Gaye nga gisee combat bii passé keroog. waaw sëñ bi yaa dugal ci rek. <laughs> daa yàgg na <laughs> yaa ngi may dugal ci loo xamante ni. Hmm. nga ne ko yaa ngi may dugal ci loo xamante ni moom xaw na xaw na doy waar. Mm-hmm. parce que làmb la joo xamante ni tey àdduna yëpp ko doon xaar. Mm-hmm. mu ñëw. Mm-hmm. am na mu bett am na ñu ñum bettul. parce que làmb nag moo lii ñoo ànd. chaque jour bis bi nga gën a yaakaar gën ci am confiance bis boobu ngay ñàkk. loolu moog sport ñoo ànd. làmb mooy toll foo xamante ni tey euh, sénégalais yi. fañ koy séentoo ak fa muy amee xam nga boo ma. ba bàyyi xel sax maa ngi ci def sotti ma ne. làmb làmb ji di ñëw dimanche dana bëri ay surprise yu am ci làmb ji. Mm-hmm. te yaakaar naa keroog dimanche surprise yu bëri na fa. Mm-hmm. ndax combat yu bëri ni ko nit ñi yaakaare woon ak ni mu amee. bokkul bokkul. Mm-hmm. waaw. làmb nag moo demee noonu. moo baaxoo loolu itam. waaw da ngay toll foo xamante ni. am na ci yu bëri yoo xamante doo ko mën. mais nag. sant yàlla rek. Mhm. ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. di julli ci yonent ba mu yeggee ci jàmm ak salaam. macha allah sant nañ ko bu baax. Mhm. macha allah combat bi dafa paase ñu ne mystique dafa feeñ comme surprise yi nga ci doon waxee nan nga nan nga jàngatee eh, làmb jooju noonu. waaw làmb nag mu mystique ñoo ànd. làmb suñu culture nationale la. Sénégal làmb dafa am lum làmboo. mbër yaa gën a fee préparé combat def social def lu ne te du jàpp adversaire mais jàpp mbër ak ñàkk jàpp mbër fi lañ ko fekk fi lañ ko bàyyi mais nag dafa am foo xam ne boo fa tolloo ci làmb war nga mën a fexe ba kenn du la jàpp. effectivement. parce que fañ koy wutee xam nga ko. waaw fa ñuy dem xam nga ko. Mhm. lañ cay financé am nga ko gënuñ laa xam kër yi nag la làmb day toll foo xam ne. yenn yi boo ci basé woo dana bokk ci li yàq sa làmb ok ndax mbër day nekk ci dynamite boo xamante ni buñ solee sa nopp na la yaa ko mën. waaw. wala baaxatul. dañ lay yombalal combat bi. dañ la koy yombalal. Mm-hmm. te bi boo bëggee dégg-dëgg bu ñu waxantee rek te yàlla rek tax. Mm-hmm. dañ ko yombaloon taxaati. effectivement. parce que déjà coono yi mu doon daj ci wàllu entraînement ak li nga xam ne moom la développé ci diggante bi nit ñi gis ko. maam moom ci cim boppam sax dafa gëmoon na bu arbitre soufflé bu dalee ci kaw Balla Gaye sax géejuwaay lay teeree ji. Mhm. parce que góor it day toll foo xam ne day yëg boppam yëg boppam goo xam ne day jàpp ne lu taxaw ci kanamam rek da koy fël jàll mais gis nga làmboo. Mhm. dafa am yu mu àndal yu doy waar. ci biir làmboo boo duggul ci biir géew mënoo ko xam. biir géew lu ne la. Tapha Tine. Mhm. du wax de. ndax sportif la. waaw mais bu mënoon a taxaw jënd wax ba wax leen carrément li nga xam ne moom la dund ci biir géew bi. kon musiba <laughs> da ngeen xam ne am na lu mu àndal de. mais tafaatin mi nga doon gis mu dugg si di soo nekk ci affaire yi ak tafaatin mi dugg ci biir géew bi ak tafaatin mi dem ardo est-ce que benn la. waaw tafaatin nag xam nga benn affaire dafa am ñun ay bawol bawol lañ. Mhm. tey bu ñu sañoon tey tafaatin dina doon roi des arènes comme ay moromam. macha allah. tafaatin li ko yàlla may ci làmb mayu ko benn adversaire benn moroomam bu ne ci làmb ji la de taay bi ko ci yàlla may mhm. ak sañ-sañ bi ko ci yàlla may mhm. ak capacité bi ko ci yàlla may mhm. mayu ko ci kenn ci làmb mais tafaatin dañoo gis à chaque fois rek kuy diree ko comme moom lay mën a sonal mais képp ku mobile oyof rek waaw ah, def lu baax pour nga sonal pour nga sonal tafaatin day yomb te loolu ci carrière am dama jàpp ne war na mën a doon loo xam ne lu muy dindi ba mu set wecc la. Mm-hmm. beneen bi ci topp mooy Tapha mm-hmm. Bawol dafa yaatu. Mm-hmm. te Bawol mën nañ làmb xam nañ làmb. tey du yoon fil Tapha Tine toll ci làmb Tapha Tine dugg ci biir géew ñu naan dañ koo jàpp ci mystique ak jàpp nañ ko jàpp di ko jeexe jaaxe sax. kenn ku ne buñ ko joxee la moom mais ñun Bawol lañ am. waay Tapha Bawol la am. ay nitam bawol lañ am ay kilifaa gi tudd bawol woo xamante ni tey. Hmm. sëñ bi duñ xaar ku ne leen rek bisimilah. Hmm. ñoo xam ne tollu ma leen sax man ci dee dee weex. la la leen yàlla may xaaj ba xaajaat mayu ma. su roote doon am sax mën na maa dem ci ñoom di rooti. Hmm. te xam na foofu xam na àll boobu. la fa war na dem jox leen ko def ko ñu jóg ci moom. parce que itam du neex nag bawol bawol yëpp lay naxari. waaw kuy dere ku yor deret bawol bawol du la neex. waaw làmb dafay toll foo xamante ni liñ naan yedd yërëmu ko gën. Mm-hmm. Tafa da ngay toll foo xam da nga koy yërëm. ndax mos ngaa dégg ñu ne la Tapha Tine ay 4 x jaar nañ fi jëm Casamance wala jëm Guinée Bissau wala jëm ci àll bi dem di wuti ji Mexique te say yow nga koy dégg ci say adversaire dégg ñoo xam ne dañuy wuti ji Mexique ba seen i oto di pan ci àll bi ñu leen di lonku di indi <laughs> ah. Mm-hmm. ngay dégg ñoo xam ne daf leen di jaral dem di transférer ay sëriñu jàmbur ngir lan ndam li. mu leen ko mm-hmm. jaral. ñoom xam nañ. gis nga Aziz Ndiaye ñoom buñ gëmutoon misik hmm. kon ci combat seen combat ak jee la ñuy bàyyi misik hmm, hmm, waaw waaye lan la Bombardier def ba jàppuñ ko. waaw daa jóg ci boppam. ba kenn du ko jàpp misik ma dëgg la. te li Balla Gaye sotti koo contre Bombardier sotti ko ko contre Tapha wallaay wallaay. mais dañoo gëm taxut ñu découragé parce que xam nañ ne misik lu am la. ndax dund nañ ko dundati ko. wan nañ leen ñu gis teg nañ ci seen bët. te dañ ñëw nañ làmb ba tàyyi xam lan la ñuy fekk ca biir géew ba mm-hmm. jàpp nañ mbër ñoom ci mystique mbër jàpp na leen ci mystique dëgg la kon xam nañ lan mooy mystique macha allah tafaatin nag dañ koo jàpp jàpp ko jàppati ko jàppati ko wallaay wallaay te loolu wax dëgg yàlla dafa war a mën a ñàkk ci moom macha allah tafaa bu investir ci boppam kenn mënu koo jàpp mm. tafaa li war a nekk ci moom bu nekkee ci moom pour mbër daan ko ci làmb ji du yomb day jafe mais tafaa muy dugg ci biir géew da nga bëreeg Balla Gaye 2000 la 2013 2 juin mu def la même chose ñëw ñu naan dalaa jàpp mystiquement. Mhm. mu humilier la. daan la daan la. nga bëreeg Ama Balde. 2015 10 mai. xamoo fooy taxaw mu jàpp la. daan la daan la. nga bëreeg Eumeu Sène barki Demba Ndiaye. waaw. fu ko neex mu dugg ko fi sa biir garde bi. Mhm. fu ko neex mu jaar ko fi ci yow. ba mu daw dugg la jàpp sa tànk yàlla suturaal la ci may la ci ndam. Mhm. ngay bëriwaat ak Balla Gaye xam fam la jaaroo. kon waroon na mën a jël matuwaay te xam ne lamb ji du entraînement kese. normalement. dëgg la lamb da ngay pare physiquement mentalement moralement mais socialement. macha allah. parce que lamb moo ko baaxoo. surtout ngay bëre ak ñu am ay moyens. bis bi jaral leen lu ne. Hmm. bu leen jaralee benn war a na la mën a jaral fukk fii mbër préparé na fi combat xam ne jëkkul sax mu pousse lamb ji. waaw gaañ boppam wala mu def lu ko neex pour lamb ji moom na jekk ba pare door a ñëw. parce que lamb folo mais ku Tapha Tine mun nay daanoo nu ne mais pas nii ci làmbam. ok parce que ki muy bëreel ku nekk lay foyee ci làmbam ci kaleeru làmbam ba mu des ñaari ñi. Balla Gaye Tapha Balla Gaye. Euh, ak Tapha Tine. Mm-hmm. du kaf ci ñoom. xam nga lu tax. <laughs> xam nga lu tax. waaw xam na ne Balla Gaye xam na ne ñaar ñii ku ma ci humilier wut daf may humilier. dëgg koo ci gaanul mu gaañ la parce que ku xam Tapha xam ne ku muy daan ku ne da lay humilier door daan Modou Lo ku ko xam xam ne ku muy daan ku ne da lay humilier moo tax képp kuy bëreeg ñoom boo leen wu doo leen daan ok léegi lamb jooju jeex na sëñ bi empereur roi des arènes coow laa ngi ne kor non empereur roi des arènes moom xam nga ba histoire lamb sosoo ba léegi yéen a ngi door a dégg ay empereur waaw am déet ah. te promoteur moo kereel boppam. Hmm. loo xam ne luñ fi teg la askan wi teg ko wala CNG bi teg ko wala dara empereur trophée kon loolu kenn ku ne am nga mi ngi mel ne jamaïcain bi di ñëw. bu hmm. tëggoon làmbam tey bu ko neexee. Zarko Bébé Diène waaw créer benn trophée am. Ah, wala dara boobaa ku ko jëlit <laughs> da nga koy teg sa bopp rek am déet. mais ñoom ñaar manu bëre waat mënuñoo bëre Assane Ndiaye Assane Ndiaye noonu keneen ak keneen noonu promoteur yi nekk fi. mais jàpp naa ne diggante Balla Gaye 2 ak Modou sëy bu tas la. Eh. eh. waxoo ngoro gu tas sax sëy bu tas. dafa am lu mu bëgg a wax foofu tuuti ñu leeral ko tuuti. muy lan. bala ngaa maye ji revanche da ngay jëlee ji revanche. ça veut dire. dégguñu de su ñuy dem bay wax naan Balla Gaye ndax day maye ji revanche ci Modou am na ay revanche ci Eumeu Sène. ah loolu de am na. am de. Ah. wala ngaa dem di fompal kenn kanamam fompal sa kanam ba pare. ah ah mais mais ngay Gaye 2 Modou ñoraatul pour troisième fois. non Modou nitu kàddu la man ah. xam naa Modou. Ah. milliard du bëre ku mbëreel ba pare ndax moo ko wax. nit ñi ah. dégg ko Modou du mbër yi nga xamante ni dañuy wax ne duma def dara ba pare. wax waxee defaat ko. benn jullit la te dafa fonk kàddoom te bañ diir bi ñu dalee ànd ak moom ba léegi musu ñoo wax loo xamante ni tey. day taxaw di ko rëccu. mais attention sport business. ak lamb 250 millions. lamb 300 mais Moodu nag xaalis di ko fëkkut. Moodu du businessman. Moodu du businessman laa man li ma xam ci Moodu xanaa mu soppeeku. waaye li ma xam ci Modou man saa Touba. Hmm. Modou du businessman parce que Modou damaa gis borom alal bu ne wut si ko. tëj bunt bi. ndeysaan. correcte gis kenn ku nekk laax jéem ko jaar fu ne mën a la mën a la nii bunt yi tëj. Hmm. parce que mu dafa yàgg gëm boppam. macha allah soo waxee mu ne leen li ma war a am dama koy am te lii moom ma koy may faay. lu ko waaye di jox sa xol tàll nga ñëw yëkkati ko jox ko mais mu du tàll nit loxo Sénégal ba Sénégal daj kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg borom dara yeeg yëpp nag ku ci muut loo mu sa tàllal loxo na ko wax mu du wax kenn soxlaam. kon combat daa daal sëy bu tas Moodu mun na toog ak yow nii du yor fukki dërëm te mbindeef du ko xam. ci moom ko xam dëgg du laaj ku yàlla bind. dafay gore mais combat boobu kon mënul amaat ci sport quoi. yaakaaruma ko de. Hmm. yaakaaruma ko wax dëgg yàlla yaakaaruma ko. Balla Gaye 2 Modou Lo. mais ñoom amatuñ li ñuy prouvé ci làmb sax Balla Gaye 2 ak Modou Lo bëriwaat ko bëgg. combat commercial la aussi. askan bi bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg deux fois ah. mais paa yi bu njëkk ñoom ba 6 ba 10 fois bëggee dégg dëgg liy neexal Père Mansour Diop su dégg dëgg. waaw waaw su ngeen bëggee dégg dëgg liy neexal làmb. waaw Manga 2 bi mu fi nekkee. waaw ba jël li mu war a jël lépp ci làmb hmm. bëree tuutoon ak benn mag xale yi la wàcc bëri ñoom bi mu demee ba xam ne làmb ji lii la da ko fay bàyyi ndànk dem Yékini bi muy bàyyee Balla Gaye 2 ak Lac de ci la mujjee xam ne jeex na mu bàyyi Baboy ci ñan la mujjee Tapha Gueye Tapha Gueye ci ñan la mujjee Balla Gaye ak Lac de Guiers 2 ah kon Modou foofu lay mujjee tamit làmb da boo daanee say morom daan say mag say mag daan la say morom daan la da ngay wàcc bëreeg say rakk foofu lañ toll ñoom ci làmb seen fin carrière fi ñu toll mooy nañ bëreeg xale yi te xam ne xale yi ñooy tey ji gis nga fii bu fi bàyyi jógee taaw mooy doon. Mhm. am déet. Mhm. ku mën a doon ci àdduna mais mënoo ñëw bàyyi jóge fi rakk bàyyi di doon mënul nekk. macha allah. ay génération lañ def nañ li ñu war a def ci làmb. seen mag mayoon nañ leen chance ñu bëreeg ñoom nañ bëreeg xale yi man daal li ma bëgg mooy. Mm-hmm. nañ bëreeg xale yi xale yaa ngi fii ñun Serigne Ndiaye dëgg ngi fii. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñun rëg rëg ngi fi Ama Baldé ñoom ñi ngi fi Boy Niang ñi ngi fi. Mm-hmm. dama bëgg li des seen carrière ay Siteu gars yi. li des seen carrière yaa ngi dégg ñu bëree ko seen biir. bëree xale yi yaa ngi dégg boo xam la wax ne dëgg la nag ñoom seen biir am nañu ay combat jànq. Ah, ay revanche ay revanche ngi ci biir. mais nag revanche mënut a passé nga bëri nit ki gis nga yàlla muy kenn lenn muy continuer Modou Anta waaw loolu de dëgg la Modou Anta da ngay xool ci carrière u Balla Gaye 2 hmm. Balla Gaye 2 daan na ñëpp daanut Bombardier ah. daanut Eumeu Sène waaw ah. te ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk daan na ko deux fois ñu tëgg ko huit xoolu Modou Lo daan na ñëpp mënut daan Balla Gaye 2 dëgg la xoolu Eumeu Sène daan na ñëpp mënut daan Modou <laughs> xoolal Tafatin daan na ñëpp. mënul daan xoolal ñëw na daan leen ñoom ñëpp Tafatin daan ko deux fois Eumeu Sène daan ko deux fois te ñi ñi gën a pop am popularité ci làmb muy Modou Lo ak Balla Gaye Balla Gaye 2 moo leen daan <laughs> làmb ngi noonu chaque jour yàlla suñu borom bi da leen di wane ne mayuma kenn muy continuer kenn ku ne ak li ma la compal li ma la may ci kii moom laa la may ci kee mbir yi dañoo tollawut nit nag da ngay nangu dogalu suñu borom kenn ku ne li ko yàlla may may na ko Balla Gaye 2 li mu def ci histoire làmb mbër du ko gaaw a def Modou Lo li mu def ci histoire làmb ba àdduna tukki dootu leen gis ko ko def mhm. taay bu toll ne Modou Lo ak mhm. gabari bi mu am ak ni mu toll ñi fi dàqoon a bëri ci senegal bi ñu ko fi amee taxul ñu doon roi des arènes Moustapha Gueye lañ wax ne moo dàqoon a bëri ci génération mhm. taayu Modou Lo la yoroon ndax doonoon roi des arènes Baboy taayu Modou Lo la yoroon ndax doonoon roi des arènes Boy Kayre taayu Modou Lo la yoroon ndax doonoon roi des kon Modou tey bu ñëwee moom ci histoire u làmb ban bër ngeen fi mës a dégg bu am 14 combats 14 victoire 15e combat mu door daanu. Hmm. kan la. Modou Lo Yékini mi roi des arènes 13e combat ci leen nii la ak Moustapha Gueye. Hmm. fi bëree 14 combats 14 victoire 15e combat mu door daanu. bokk ci VIP yi fi ëpp ay victoire. Hmm. gën fii néew ay defet VIP yi ñuy tudd ci kaw kan moo ci gën a néew la Modou ay défaite. Modou Lo rek 22 victoire 3 défaite. match bi jeex tàkk. ku daan nekk empereur nekk roi. waaw léegi. ku ne andaale sa trophée ku daan yóbbu. léegi léegi dama leen di laaj. mais yéen lamb. Hmm. da ngeen a soxore booy yi wala lan mooy seen. <laughs> ñoom aada faas ak ñi mos ba pare. <laughs> mais sëñ bi ku ndekki ba pare. ndekki ba suur nga ne da ngay ndekkiwaat nga ne ko da ngay ndekkiwaat fan la am. ñoom hmm. ñoom amatul lu ñu ci lamb. Hmm. doon nañ ay roi des arènes ba pare Balla Gaye Balla Gaye jëlaat roi des arènes. bu saay amalu ko njëriñ ban njëriñ la ko amal. rien. Balla Gaye kay li mu jël nii kay amal na ko njëriñ fi mu toll nii bi nga xam ne da ngay fay ko par weer. na ci sant yàlla jàpp la ci doomam yi ñoom Mouhamed rek ah Baye Sall ñoom. macha allah ah, ñu ñun ak suñu couronne bi na téye empereur am <laughs> bàyyi ñu ak suñu couronne. <laughs> day na sax ba mu téye couronne bi. def na ca lam ca war a def ba muy yor couronne bi nekk fa di maye ay revanche. Euh, kon daal day na sëg day jërëjëf sëñ couronne bi bi mu nekkee ci loxoom. Eh. kan la Balla may revanche. kenn. da doon avance dem de. Eh. gëstu wutoon kenn. ñi mu daanutoon la doon jëlee ba ni mu ko ñàkkee ci Bombardier ñun nag couronne bi mi ngi suñu loxo. Hmm. mayuñu revanche ñaanuñuy revanche defu leen yalwaanu ñuy revanche xamoo lu ñuy xool euh, kuñ musul bëreel daal te jànq yi ne ci làmb ji jànq mm. yi lañ bëgg a jàkkaar loolu pour nit ñi teel koo jënde seen xel ñu bañ fee nekk di détail di dugg ay Instagram ak ay live ak yooyu man saa Touba personnellement man maa leen ko wax muudu mm. ci kanamam lay xool macha allah xoolul ci latéralam gauche xoolul latéral droite xoolul derrière ci kanam rek devant ayca sëñ bi kontaan naa si yow jaajëf mi ngi noonu alaaji sa Touba la ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax di kontaanaat ci moom bu wér a mbokk yi di leen jox di daje rek ba beneen yoon li waral lii nag xam ngeen ko parce que ki ma ko sekkal wax dëgg yàlla suma waay la moom 95 guy gi mbokk yi di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah jërëjëf